est-ce que yang gis rumeur kande bi. waaw waaw waaw gis na ko wallahi dama ree ba bëgg de kon yow ay ree la def ni wa dama ree. yow wax ji jaaxalu la dina def ay ree tamit. man kun kande ma xam nga lu tax. wala moo tax. gis nañ fi jigen ju ne moy yonent bi. mon ka wax nga deug de. xana xana àdduna bi dañ ko fàtte. kenn wu ko de Tata Saldé. kenn mo waron xar geej gi xar na ko keneen kuy xaraat gi fi fi amatu ferme moi. dafa fekk ne kan li yonent yalla musa defal la wote foog ñu def attention ci li ñuy wax. mais tata nag taxawal kun kànne dafa mel ni histoire la fi nar a def de. tii si histoire jàmbur. Hmm? bay taxaw di ci fokk ni ñi sénégalais yi. kon yow da jàpp ne moom dafa tricher histoire jàmbur. ah bien sûr. mais ban histoire. Moussa. lan li fi yonent yàlla Moussa defoon. Moussa day faxat géej gi jël yat fa dóor ca géej ga. ak saa yàlla de moom kenn la. moo tax ànd ak yàlla rek a wóor. te muy dëgg. nañu bàyyi yebaatay te xam ne Sénégal ay kilifa fi nekk laa wax. tata wàcce station. Sénégal kilifa fi nekk am na loo xam ne dafa ëpp. tata mënoo wàcce station bi tamit ndax ñu mën a continuer suñu waxtaan. def say defin ba pare nit ñi wax ngay rëy laam yi di ubbi sa tuun. astaghfirullah. ay tata déet kilifa ñoo seetaan tamit. maa ngi jéggalu ci wax gi ndax nit ñi xamewuñ may yenn yi. la ruube ah dee ko bàyyi xel tamit. dëgg du romb nopp. mais tata taxawal yan matukaay nga yaakaar ne ñu ko jëlee comme kan du mën a xam suñu ndax té ragal na bu ko xaré ci bu keccax moy mu jëddon suñu plan national ndax ndaxte jëm dina manké kat la bisina fatana naa tamit jën bu jeexee fa ñuy jëlé keccax tamit dé way dé réew mi ké ragal na né ragal na réew mi ci bopam mu amati plan national Macky Sall sax ko def mu ni na président jël ay matuwaayam muy selbe man dama ko ñëkk ci sama bop la la ilaaha illallaah tata bi nak wolu nga sa bop wel lel lel lel té nak nag ay doxi rek képp ngay wax suma fi waxe li fi war na ma ne dagaj ci kasso ba ya cheikhul ibrahim baba Lamine jassi mais dangaa sal rek kan moo fi waxone ne podium bi alquran mo ci feeñ nest pas du yow nangu mais bu boba bir brigade de recherche lu muy xaar ci yow may dem jébbali sambor sax bir brigade de recherche la ilaha illallah ci sama tata ak gore nak ndaysan wa demal nga jébbalaat sa bopp en attendant brigade de recherche man ma continuer sama débat yow jëlal ma micro bi jox joxal oustaz Iran waaw waa oustaz Iran Kandé ne nee na day xar géej gi de. moom bu ko xaree lum ñuy jëriñu. ah joxe na jour bu war a xar géej gi de yaakaar naa jour tamxarit sax la wax. yow jëriñu la jëriñu bu koy xar na dem toog xar moom dong. ferme moi. ah oustaz ñu ne buñ ca eggee dina ko xar de. buñ ca yeggee yàggatul danaa ko buñ ca yeggee na xar. est-ce que dina am ay nit sax. waaye dana weddi. ah dina la oustaz Iran. Sénégal gépp de nee nañ jour boobu rek la ñu di. ah man de du ma fa ne. ah de waay de. lay daa. ah oustaz Ira kon nar naa tardé xaru géej gi rek ñii di. ñun ay xar géej doxuñu ci. mais lu Sénégal gépp di xaar nag oustaz. Sénégal yi nañuy xalaat nañuy xalaat. am na nag ñu gëm ne oustaz kon Kande mën naa xar géej gi. xam nga ne da ngay fen. eh man waxuma ko de oustaz Ira kon Kande moo ko wax di. ko loo ko wax day fen laa wax. la ilaha illallah. kon dal ba léegi yeen mënu leena gëm ne kon kan ne mëna xar géej gi anduma ci tay anduma ci ëlëk man sel Ndom démentir na loolu amut kon dal yow yaakaar nga ne kon kan ne amul xam-xamu xar géej waaye yow fu nga jëlé xana ci jinné ni nañu ragal yalla te xamné ne mais tata taxwal imagine toi kan ne xar géej gi jour tam xar ayo ah, gëm nga lool no gëm mo sax mais supposons la wax amul supposons dafa mënta nek ku yaa seexul Ibrahima Baba Lamine Diassé. kon daal bu la déggee yow Tata Sandé li yàlla mooy yonent yàlla Moussa mun koo meex kenn ci àdduna. waaw xamul ne ne yàlla lim ñu may ñun xar géej mu a ndaw. ah. problème bi mooy. ah wax ñu lan mooy problème bi. moom mi ko wax moom day fen wala déet parce que moom la yàgg na fen. kon kàlle ñëpp dañ laa sas te gis nga tey sama trois invité yi ku ma ci wax mu ne ma kun kànn mën ta xar géej gi xoolal un kun waxaatal. ma xar géej gi. loolu du dëgg ay kàcc la. ferme-moi. même réponse deuxième bi boo dikkaatee nga waxaat. buñ demee géej ma xar géej xam nga ne da ngay ferme-moi. yaa ngi dégg laa ilaaha illaa laa lay wax nii de. buñ ma xar géej gi. problème bi mooy moom moom day parce que moom na fen. ferme-moi. kun kande ngala ngir yalla xalandu ñu gi comme que kun kande jox nañu délé kun kande dekk bépp yow lañuy xaar fi sax la gisé té nga def ko yow nga dévier ko moy tabaski gu tam xarit gëna am bës tam xarit ren gi mo gëna am bës tabaski tabaski ñaari jour ci dess kun kande kun kande nga da ngay xar geej gi dëkk bépp ne lañ taxaw nañ kun kande mënu ko xar xamu kun kande xamu kun kande en tout cas len rek lay am lu ma lay wax mom gis nga jour ba xaru geej gi sénégal yépp ngay amal problème kun kunkande sañu sañu xana sañu japp jour bi ba ñëpp def ci seen xel ñi jël ay car ñi di ko wacc ñi sax nee seen cere tam xarit inshallah ci géej gi lañ ko nara a lekkee yow nga nan fomm ngo xana ñëwoo loolu quoi de toute façon dal lenn la amul lay wax kun kandi kun kandi dang ñoo jox délai té do ko fomm ñu loolu lañu mëna wax nak ñu loolu lañu gis. oh assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh man de lii laa wax <laughs> xanaa suñu maman Ndoye Ndiaye tamit yow loolu nga wax. lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatu. bu ko defee ñu bàyyi maam ñaan ñu tasaaroo ba beneen yoon. amiin.